يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فيه الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونور الجنان سدد اللسان يا من له ذكري والشكر بالحسان وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري ولتشكر الذي هنا أقول يا خير من ينحو له معقول asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu euh, fas yéene ñëw rek nees ko baaxoo ci waxtu wi ak barab bi ci ay kàdduy fàttalante li ñu façon nag mooy waxtaan ci am commerce wala njaay moo xam ne euh, du du am perte bénéfice rekk moo ca mën a am njaay moo xam ne mukk ci àddina ka koy def wala commerce boo xam ne yaxantu boo xam ne ka koy def mënu cee am lu dul bénéfice waaye pertement du ca am ku ne xam na ni euh, mbiru jënd ak jaay dafa ànd ak jamono te mën nañu jàpp ne li tax mooy doomu aadama bi ni ko suñ borom bindee muy kaain ijtimaa yi di dund ak ñeneen di jokkoo di jonjoo ak ñoom di am yitte yoo xam ne mënu ci mukk taxawal boppam lépp doomu aadama ba muy jëfandikoo sax mënu koo bayal boppam ji ko bay ko toppatoo ko togg ko ba jëfandikoo ko kon loolu moo tax ba kenn ku ne am loo féetewoo sa morom mënu koo ñàkk ngeen di ci weccente muy ca niveau ba gën suufee ba ca gën a kawe muy njaayantu bi nit ki di jaay moo xam lu muy lal ci suuf la wala ci table la ba ci accord commercio yi nga xam ne international lay doon wala yu mag a mag wala sax mu jaar ci yeneen ay transaction ak i action wala mu yéeg ba ca bourse ya mbokk yi jënd ak jaay boobu nag dafa mel ne yàlla daf koy jëfandikoo lu baree bari di ci wax ak nit ñi ngir ñu war cee jël bind inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum misaal la ci yàlla jënd na ci jullit yi seen bakkan ak seen alal mu mel ne daf ko jënd ci ñoom jënd ak jaay jël la ak joxe amaliyatul axz wal i'ta bam ne jënd na ko ci ñoom lan la leen jox lan la leen faye bi anna lahumul jannata yuqaatiluuna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yuqtaluun moo tax yonent bi sallallahu ci benn xadis muy wax ne marchandise suñu borom day lu cher la daa dina suñu borom nag mooy aljanna kon loolu misaal rek la ci waaye bari na lu ko suñu borom di jëfandikoo ba ci sax yeneen yi mu yi mu làmbool wala yi mu méngool ndax tey ku wax jënd ak jaay léeg-léeg nga wax leble ak yooyu yëpp man da alladi yuqridu llaha qardan xasanan yooyu yëpp day wane ne mbir moomu suñ boroom def ci wax ak nit ñi kon nag moo taxoon ñu ne nañu waxtaane njaay moo xam ne wala ñetti xeeti commerce yoo xam ne daal mënta am pertement faaw nit ki def ci am bénéfice te fekk na nag li ñu xam ci commerce mooy nit ki ni mu mënee am bénéfice ni na ni la mënee am pertement nim mu mënee tonawu ni la mënee safaan bi am ndax àddina moo doxee noonu li ñuy wax ki ne risque rien n'a rien faawum nit day jóg rek am yaakaaram jaar ci jaaruwaay yi Eh, mën naa dëppook nag la mu bëgg ak la mu yaakaaroon waaye leneen mën naa am mbokk yi kon ñetti mbir a ngi nii ñetti domaine ngi nii yoo xam ne daal ay ay commerce la yu amul pertement nañu dellu ci aaya bi yàlla di wax subhaanahu wa taala ne inna allazina yatluuna kitaaballahi wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan yàlla ñeen ñii daal ñoom ñi ngi ci commerce boo xam ne duñ ca perte moom ñii daal ñi ngi def commerce boo xam ne yaakaar bañ ca am du tas ñooñu moy ñan nee na mooy ñi nga xam ne dañuy jàng téereb suñ borom bi mooy ñi nga xam ne dañuy jàng alquranul karim kon mbokk yi alquran jàng alquran ak la mu làmboo xëy na li ci waxtu wi mayee dees na ko ci indi waaye lu mën a am commerce la boo xam ne amul pertement wa anfaqu mimma razaqnaahum ñi nga xam ne la leen yàlla wërsëgal dañ cay jël di ko def ci yoonu yàlla te yoonu yàlla def ci yoonu yàlla lu yaatu la dinañ ci ñëw ndekete nit ki li muy def sax ba ci njabootam ba ci jëmmi boppam ji mën na caa am yàlla kon ñi nga xam ne daal dañuy dépenser seen alal ci yoonu yàlla ñoom itam ñi ngi ci commerce boo xam ne faawu bénéfice lañ ciy am mënuñu caa perte bénéfice ba nag nu muy demee wala pourcentage ba nu muy demee xëy na ci biir waxtaan wi dinañ ci ñëw kon ñaara ngi noonu ci xeeti commerce yoo xam ne ka koy def du ca perte waaye def cay gañe benn bi mooy jàng alquranul karim bi ci des mooy dépenser sa alal di jëf ci yoonu yàlla bi ci tegee mooy wala balaa boobu sax mooy julli kon jàng alquran julli ak def sa ci yoonu yàlla ñetti xeeti commerce la yoo xam ne mënta am pertement mukk mbokk kon yi njëkk ci ñetti yooyu buñ sukkandikoo ci aaya bi mooy jàng alquranul karim ndax alquran dafay téereb suñu boroom di message boo xam ne nit ki moom la war di jàng jullit bi teg ci tànkam ngir bañ a wàcc yoon wi waaye ngir mën a yegg fa mu jëm jàng alquran ak ngëneel yi ci ne lu baree bari alquran ci boppam indi ko ba tënk sax ci faqra'u ma tayassara min alquran kon jàng alquran mën nañ ne buñ sukkandikoo ci aaya bi mooy li jiitu li kiy wut bénéfice boo xam ne ci suñu borom la ko mënee am di war a yittewoo jàng alquran alquran xam nañ ne téere la boo xam ne jëmmi jàng gi rekk dañ ci jaamu suñu boroom te jaamub suñ boroom bu kawee kawe la yonent bi sallallahu alayhi waxoon na ni benn arafu alquran bu ne suñ boroom daf ciy fay fukki yiw mu leeral wax ne waxuma alif laam miim xarfu la déedéet waaye alif benn araf la suñ boroom dana ca fay fukki yiw laam benn araf la suñ borom dana ca fay fukk miim benn araf la suñ boroom fay ci fukk nga xam ne boo nee alif miim gën ngaa néew fanweeri yiw da ko am lu baree bari rot ci ëllëg yowmal qiyaam yonent bi saa nee na jaam bi bu dikkee dañ koy wax ne ko ne indi li mu yor ci alxuraan lu mu gën a tari la ay darajaam gën a yéeg ba fa mu mënee yam alquran di téere bi nga xam ne kon moom la jaam bi war di leerloo ndax leer la moom lay war di niitoo ngir fi mu war a teg tànkam mu teg ko fa moo tax misaal bi may faral di indi bu jot la bi sëriñ bi misaalee ni mu téewee alquran wax ne maasikan bil kitaabi maska daririn bi yeddil qaaidil basiril muini nit ki ay bëtam muuru ka koy wommat mu jàpp ci loxoom na muy wóoloo ka koy wommat te dafa wax bi yeddil qaaidil basir ki koy wommat te nekk borom gis-gis boole koog di dimbale ki muy wommat bu boobaa ki ki mi ki ñuy wommat ay bëtam muru moom lijjanteetul nii lay jaar wala nele waaye dafa lijjanti rek jàpp jàpp bu dëgër ci loxoy ki ko wommat ndax wóor na ko ni yoon bam koy jaarale mooy yoon wi kon maasikan bil kitaabi maska daririn bi yadil qaidil basiril muini jaam bi noonu la war a jàppee ci alquran muy ngëb gu wér goo xam ne du ànd ak dengi dengi du ànd ak sikki sàkka kon jàng alquran commerce la bu amul bu amul pertement alquran ëllëg yowmal qiyaam dafay dafay ràmm borom yonent bi sa moo ko wax ne weeru koor ak alquran ëllëg yowmal dina ñëw di tinu di ràmm ka leen daan kon jàng alquran taxawaay boobalaam la am ak la làmboo nag rawatina jàng ga ànd ak settantal jàng alquran gu ànd ak settantal donte ñàkk setantal gi du nekk lay ci ñàkk jàng alquran waaye ngëneel lu rëy dafa nekk ci jàng li nga xam ne jàng alquran gi ànd ak setantal moo tax muy junj di wax ne benn aaya alquran rek bu ñu settantal maanaaya ca yool ak ci tuyaaba mën na ëpp mboolem kaamil bi nga jàng ko te xamoo ca dara walla te settantoo loo ca dara kon loolu yépp ci ay ngëneel yu alquraanul karim am ak jàng ko solo su ci ne moo tax muy wax ne qultu fa man yurid rida arrahmani wax naa ni kon képp ku bëgg ngërëmal suñ boroom na nga ko wut ci lan fal yusbitan ku bëgg ngërëmal suñ borom na nga saxal na nga saxal la wax mooy na nga saxoo di jàng alquraanul karim moom saxal gi rek la lay wax adim tilaawatan li zalika alkitab adim mooy saxalal mooy taqool di jàng téere bu màgg boobu muy téere suñ borom subhanahu wa wax na ni sax donte ñetti xisib nga ciy jàng bis bu nekk bu ko bàyyi adim tilawatan li dalika alkitab walaw salaasatan min al ahzabi fi kulli yawmin ci bis bu ne dem na sax bay xirtal ñi ànd moom ci taqoo jàng alquran ak saxal ko kullu muridin bi yaluusu fal yudim tilaawatan li xayri zikrin qad rusim kon mbokk yi ab commerce daal boo xam ne amul pertement mukk jàng alquran ci la bokk fa man araada alqurba min mawlaahu fal yaqra'il qur'ana laa yansaahu képp ku bëgg a jege sa boroom na nga taqoo di jàng alquranul karim mbokk yi lu baree baree bari lañ ci mën a wax ci commerce bu rëy boobu nga xam ne amul risque amul pertement mbokk yi ñiy def commerce dañuy nattale di jël matukaay yu ne ngir bañ a am pertement léeg-léeg dinañ dàkk marchandise ba fa mu gën a yombee nañ koy amee prix de revenu bi daañ saytu ba fa mu gën a yombee gën a jàppandee daañ fexe ba qualité bi par rapport ak lañ ca mën a am daañ sonn ci ji ci jël ay matukaay daañu xool itam période boo xam ne ñaare traite la marchandise mi waxtu wii daal ñi yaxantu ci mbirum jur xam nañ ni bu tabaski jotee lañ ca mën a am mënuñu ko am ci yeneen waxtu waaye nag mbokk yi yooyu yëpp ñoom dañ koy def ngir bañ di am pertement wala seen bénéfice yokku kon jàng alquran la nag commerce la boo xam ne waxtu wu ne bénéfice am bu baree bari la bu ama am solo la kon nañu ko bàyyi xel kon boobu benn la ci xeetu commerce yi ci ñetti commerce yooyu nga xam ne amul pertement bu ñu ko sukkandikoo ci aaya boobu inna yetlu na kitaaballahi lan moo ci topp wa aqaamu salaata taxawal julli commerce boobu am mën nañ sax ne xëy na jarutoon taxaw ci ab jullit ndax dafa dafa essentiel daanaka mooy ak jullit mooy diine asalaatu imaadu diin julli mooy kenoog diine yonent bi saa ne kon ku ko taxawal ku fonk julli ku ko taxawal taxawal nga diine waaye ku fonkul julli ku ko màbb màbb nga diine kon julli mooy diine wax ne wolof jotal na ci baatub tuddee jullit jullit bi mu tuddee ko jullit ndax ki julli rek moo mën a nekk jullit kon aqimi salaata alquran ci barab yu bari ñëw na ci li duluki shamsi ila xasaqi layl ak yeneen yonent bi saa sallam wax na ni bayna bayna rajuli wal tarku salaa diggante jullit bi ak ku kéefër bàyyi julli rekk moo fi dox mooy ku julleetul rekk mu ngi ci kéefër wax ne li ñuy njëkk a laaj xisaabe nit ki bu duggee ci bàmmeel mooy julli bu baaxee amaana mu am yaakaar ci jëf yépp bu baaxul safaan wa wal iyaazu billah kon julli noonu la mel commerce la boo xam ne amul pertement yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yitte yi daan na bari coono yi xaw a bari ba mu wax bilaal eh, Bilal ibnu Rabaax radiyallahu anhu ne ko noppalee nu julli mooy wooteel julli ndax ñu mën a ñu mën a ñu mën a noppalu mooy ñu mën a jegewaat suñu boroom ñu mën a amaat ak dal lu li tolloog li wax ne wa innama ju'ilat qurrata ayni fi salaa yonent bi saa ne li dal xelam te sedd xolam dëgg dëgg yàlla mi ngi ko ko defal ci julli nga xam ne jaam bi fi mu gën a jegee suñu borom subhanahu wa mooy fu fu jullee rawatina fu mu fu mu sujjoodee la gën a jegee suñu borom fas judd waqtarib sujjootal gën a jege sa borom ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashadu anna muhammadan rasulullah ashadu an laa ilaaha illallah ashadu an laa anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaam fàttalante muy dañ doon waxtaane ñetti xeeti commerce yoo xam ne suñ boroom moo ko lim wax ne ñi koy def day ñi ngi am yaakaar wala yaqiin ci commerce boo xam ne amul pertement te fekk na li ñu xam ci commerce wax nañ ko mooy yaxantu la la ca nit ki gën a jublu mooy am bénéfice waaye safaan wa mën na caa am yii nag suñ borom moo garanti ne euh, commerce la yoo xam ne amul pertement bénéfice rek moo ci mën am wax ne jàng alquranul karim ci la bokk ndax alquran mooy seetub jullit bi mooy làmp bi koy leeral ngir mu xam fi muy jaar lépp lu muy jëf lam cay tegtaloo ci ay axkaam ci alquran la koy sukkandiku ak sunna ak balluwaay yu wér yi jàng gi di jaamu yàlla gu am njëriñ bi ci des ni tolloon ci mooy julli julli doy na sëkk na rekk mooy diine yeneen bi saa sallam moo ko wax ne julli mooy kenok diine ku ko taxawal taxawal na diine ku ko màbb màbb na diine wax ne diggante jullit beek ak kéefër julli rek a fi mooy ku bàyyi julli nekkatul jullit ku bàyyi julli tàbbi na ci ak kéefër ñu ñëw ci tomb bi ci des kon muy xëy na ñu gën cee yaatal muy beneen xeetu commerce gi nga xam ne amul pertement te moom day am na lu mu niroog lu mu gën a niroo boog ak commerce yi ñu xam nga xam ne dangay jël sa alal am loo ko def te yaakaar cee amaat leneen mooy joxe ci yoonu yàlla al infaaqu fi sabilillah xeetu jaamu yàlla gu am solo la di commerce bu suñ borom garanti ne amul pertement dañuy wax ne Seydina Ali radiallahu anhu wa karrama wajhahu dafa am ku mës ñëw ci moom ne ko man dama bëgg a xam ndax man nitu àddina laa ci waxin wala nitu àllaaxira mooy nit koo xam ne àddina ku bëgg àddina àddina rek ko ñor wala nit ku bàyyi xel ëllëg ndax walal axiratu xayrun laka min al ula wabtagi fi ma aataaka allahu daar wala tansa nasibaka min addunia waa ji daal ne dafa bëgg a xam ndax moom nitu àddina la wala boog nit la koo xam ne day bàyyi xel ëllëg ban tontu la ko Seydina Ali karamallahu wajahahu wax dana ko tontu li newul ci man loolu mënuma koo xam loolu yow yaa ko mën a xam waa ji ne ko naka laa ko mën a xamee mu ne ko ñaari nit bu ñu ñëwandoo woon ci yow kii di la jox ci alal kii da jox kii dalay lay may alal wala da lay jox addiya keneen kii daf lay laaj ci alal dafay sàkku ci ndimbal ñoom ñaar yegg seendoo ci yow mu ne ko ñoom ñaar ñooñu ci kan nga ciy gën a bëgg ndax ki lay indil alal di la ko jox walla ki lay laaj si alal kan nga ciy gën a bëgg ci ñoom ñaar waa ji ne teg mu ne ko bu fekkee ne day ki lay jox si alal nga gën a bëgg a ah, xamal ne kon yow nitu àddina nga ndax alal jooju mu lay jox si day da nga koy dundalee sa àddina waaye bu fekkee ne ki am yitte ñëw di la laaj si alal di la laaj si ndimbal te xëy na nga mën koo dimbale ngir yàlla nee na bu dee ci kooka nga gën a bëgg xamal ne yow nit ka nit nga ko gën a bàyyi xel ëllëg ndax kooka li mu lay laaj si nga di ko ko jox di ko jëlee ci yow di ko ko jox nee na loolu danga koy dundale sa ëllëg alaaxira kon koo ca gën a bég rek foofa nga gën a jëm mu mel ne mbokk yi loolu toll na ak bind boobu Seydina Ali radiallahu anhu joxe toll naag lu ñu jëlee ci bind bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe woon may dañ koo mës may ab gàtt moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rendi ko génn bàyyi ko fa sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha di ko joxe di ko joxe ba mu des ba mu des li ñuy wax katif mooy tànku kanam wala omoplate ba yonent bi sallallahu ñëwee laaj ko am na nu mu def ak gàtt bi sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha daf ne ko gàtt bi day lépp dem na ba mu des benn tànk bi mu ne ko déedéet xanaa kay danga war a wax ne gàtt bi day maam safaan bi la ko wax da ko war a wax day lépp dem na wala lépp des na waaw ba mu des tànk bi loolu mooy lan mooy limu ci joxe ci yoolu yàlla loolu moo des li mu ci joxe nga xam ne daf ko def ngir yàlla mu nekk pay gum koy dencal ëllëg nee na ko looloo des yam saa na ko danga war a wax ne gàtt bi day lépp des na ba mu des tànk bi fekk moom lépp la joxe ba mu des benn tànk li mu ci bëgg a wax mooy lépp li nga joxe ngir yàlla yow yaa ko moom ma ngi lay xaar waaye nag li nga xam ne da ko téye wala nga jëfandikoo ko mën na am lu mel noonu nga cay am moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa joxe bind boobu feneen sax mu ngi wax ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa ne doomu aadama bi day daf naan sama alal sama alal noonu lañuy ñuy doxee kenn ku ne ci ñun daf naan sama sama mbub mi sama boutique bi sama sama kër gi sama oto bi doomu aadama bi dafay wax sama alal sama alal waaye mu ne ndax yow doomu aadama bi sa alal nekkul lu dul li nga jëfandikoo mu jeex walla la nga ca sol mu ràpp jeex na wala boog la nga ca saraxe mu des mu des mooy da ko jiital suñu borom teel la ko subhanahu wa taala moo tax alquran di wax ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda huwa huwa xayran nee na lépp loo leen def ci aw yiw loo leen jiital ci aw yiw dingeen ko fekk suñ borom dencal leen ko dencin woo xam ne nag xayran wa azama ajran moo ëpp yiw gën a rëy ak pay kon joxe ci yoonu yàlla mën nañ cee déggee loolu kon commerce la bu amul pertement commerce la boo xam ne pertement néewu ci mu mel ne sax suñu borom bu doon nit ci waxin ñu mel ne wax ji def ci yéemu naka la nit ki di baña joxe ci alal joo xam ne suñu borom du ko koo dénk wa ma lakum allaa tunfiqu fi sabilillahi walillahi miraasu samawati wal ard ana lan moo tax doo joxe ci yoonu yàlla doo leen joxe ngir yàlla te yàlla day li ci asamaan ak li ci suuf yëpp moom moo ko moom te moo koy dese mbokk yi commerce ngoog boo xam ne alal ngay jël di ci def waaye lam lay jural bénéfice la boo xam ne bu rëy a rëy la moo tax beneen aaya li ma doon wax léegi ne suñ boroom dafay jëfandikoo lu baree bari mbiru jënd ak jaay ndax ka koy def def ci yaakaar tono bénéfice yaa ayuha alladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim nee na gaa yi gëm ndax duma leen tegtal commerce boo xam ne daf leen ni musal ci mbugalum suñ borom commerce boobu mooy ban mooy ngeen gëm yàlla ak yonentam di jihaad ci yoonu yàlla ci seen alal ak seen bakkan ginnaaw waxtu wi bariwul ñu wax ci xeetu commerce yii wala bii ak màndarga yi mu am yi koy leeral mbokk yi dafa mel ne bépp xeetu jënd ak jaay ak nu mu mën a demee rek wala moo xam ay accords commerciaux yu mag la dafa am ay màndarga yuñ koy xamee muy bépp accord commercial ñaare dafay am dafay ixtimaal maanaam dafay am probabilité nit ki perte wala mu gagné day am bénéfice wala mu am mu am pertement loolu loolu lañ xam ci accord commercial wala jëmmi commerce ci boppam waaye commerce yii nag ci jëmmi suñu boroom moom amul pertement bénéfice rek la am moo tax suñ borom wax ne yar yarjuuna tijaaratan lan tabuur ñooñu ñi ngi yaakaar ñi ngi xeemem ñi ngi mébét commerce bu amul pertement mbokk yi bokk na ci liy ràññee jënd ak jaay melokaan yi mu am mooy ne ñu koy séq ñaare accord commercial léeg-léeg bu dee ci ñaari nit wala ñaari ñaari wàll ñaare euh, associé kenn ku ci ne capital ba def cay participer kenn ku ne dafay indi lu mu am mooy kii day indi alal kii indi alal wala kii indi alal kii indi xam-xamam expérience am wala savoir faire am buñ ko estimer alal la waaye ku ne day indi dara waaye jënd ak jaay nag ci yoonu yàlla dafa mel ne capital bi yàlla rek moo koy joxe ci moom lay jóge yàlla mooy joxe capital bi nga séq koog moom doxal ko am ci bénéfice mu ba koog yow lu tax mooy joxe capital bi moo wax ne wa aatuhum min min maalillahi allazi aataakum yàlla nee na joxe leen ci ci alali yàlla jim leen jox alalam la ku ko am moo la ko may danga nga sabablu waaye nguur a mayewu ko kon alali yàlla la kon capital bi moo ko joxe wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafiina fii yàlla nee na li nga xam ne dama leen ci wuutal ci alal kon moo ko moom na ci joxe kon mbokk yi accord commercial ngi ak yàlla boo xam ne doo indi capital te mukk doo am pertement bénéfice rek nga mën a am beneen ci liy ràññee accords commerciaux yi ñu xam ñu daanelee fa kàddu gi mooy ne boo séq ak nit commerce ku ne da cay gis boppam bii nag yow jaam bi rek yaa ciy tonowu ndax yàlla soxlawu ko yow yaa ci tonowu yaa ciy am bénéfice kon loolu itam ci xeeti commerce yi mën a def ak suñu borom te mu bari njëriñ lool la commerce bii nag bénéfice la am amul pertement waaye taux de bénéfice bi ñaata la pourcentage bi ñaata la ndax 100 pour cent ngay am 200 pour cent Seydina Ousmane radiallahu anhu ñu daanele foofu kàddu gi bis marchandise dafa manqué lool dëkk bi jaxasoo am njëggam mu ñëw commerçant yi dogaale ko ñii ne ko benn dërëm bu ne naa la ci fay ñaari dërëm ñii ne ko benn dërëm bu nekk ñetti dërëm ba juróomi dërëm nga xam ne kon ñiy proposé ne ko ba cent pour cent ci valeur marchandise bi ku ko wax rek mu ne la gis naa ku ma fay lu ëpp loolu ñu jaaxle na ko ñun de ñooy commerçant yi fi gën a mag kon kan moo la fay loolu mu wax ne yàlla suñ borom digg na ma ci cent bu nekk digg na ma ci mille pour cent ba ci sept mille sax pour cent ndax dige na ci benn yiw bu ne fukki yiw ba ci juróom-ñaar fukki yiw kon mbokk yi commerce ak suñu borom commerce bu mat a bàyyi xel la bu bëri bénéfice la bu bëri njëriñ la yal nañu ko yàlla defal ba ñu bokk ci jaam yi nga xam ne dinañ ci tonowu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam